yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ay wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko ñoo ngi am mbégte di àndaat ak yéen seen émission bi ñu duppee ëttu murit te jii ci ëttu murit ñu ko fas ko yéene amale ci ëttub murit saarix boo xam ne dundam gépp jeexaloon na ko ci liggéeyal cheikhul xadim mu di ëttub euh, Serigne Mouhamadou Roqaya Mbacke ibnu cheikh Mouhamadul Mamoun ibnu cheikh Sidil Muxtaar euh, maam Cheikh Anta ibnu Serigne Mbacke Mor Anta Sali ibnu bokk yi seen émission ëttu tey ñuy beral siyaar sëriñ Mor Fati mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Anta eh, beral siyaar eh, sëriñ Saliou Mbacke xalifab sëriñ Afiya Mbacke waaye jagleel ab siyaar sëriñ Baara Touré xalifab sëriñ eh, Mor Fati Touré Madina siyaar yi nag bu baax a baax mbooleem njabootuk sëriñ Modou Mamoun gi teg ko ci loxol sëriñ Jili xalifa sëriñ Modou Mamoun ak Serigne Abo beral ab jaar soxna Daba Mbacke bintu maam Cheikh Anta mi nga xam ne tey jii moom lañuy ñuy xoolee maam Cheikh Anta di jaar bu baax a baax Serigne Moustapha Mbacke mu Serigne Abdoul Karam euh, di di fab jaar yooyu yëpp nag di ko teg ci loxol euh, soldaaru Serigne Touba bi nga xam ne. moom la ñu delleel ci ëttub murid bi di Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa Serigne Modou Rokhaya ñu ñaan sun borom mu gën ko fee yàggal lool te gën a doole ak wéram. Euh, tey jii nag ñu dalal Serigne Ahmadou Touré Serigne Ahmadou Touré. Eh, bokk ci njabootu Serigne moor Fati Touré waaye ñun ñëpp ñu meen ko ci ëtt bi nga xam ne moo di eh, Al Mouridiyyah Al Mouridiyyah TV di fa def émission yu am solo lu jëm ci wàllu njàngale rawatina ci yoonu murit ak jeexite lu Seexul Xadim yi eh, tey jii ñu fas yéene waxtaanee. koo xamante ni bii eh, saalihaat yëpp war nañ cee mën a jàngewaat gone it war cee mën a nafaralaat nafaraat saalihaat boobu ñu fas yéene waxtaanee moo di soxna Anta Ndiaye Mbacke di way juru maam Cheikh ak bokk yooyu ma tudd soxna faati Anta ak Serigne Mbacke Anta ak Serigne Afia Anta ak soxna Anta Sali ak ña bokkal. mbokk yi ngir njëkkante ak waxtu wi damay bàyyi sëñ ma mu nuroo nuyoo su nuyoo ba noppi rek incha allahu rabbi ñu bàyyi sëriñ bi mu defal ñu ay ñaan ñu daal di nag tàbbi ci waxtaan woowu fas yéene waxtaane eh, jàmbaar ju mag jooju nga xam ne mën na wax ne mooy laytaay bi nga xam ne lépp ci kawam la tege mu di soxna Anta Ndiaye Mbacke way juru maam Cheikh Anta sëriñ Axma bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu leen nuyoo ci ëtt bu tedd bi eh, ci wetu sang bu tedd bi di jël suñu nuyoo yëpp rek di ko joyal ci moom muy bunt bi te yem ci moom te mu jot li ñu ko rek fépp fu mu war a jàll waaye di nuyu itam mbokk yëpp di nuyu sëñ Fall maa ngi lay delloo nuyoo itam euh, di siyaare ñëpp euh, di am mbégte lool ci jataay bi ak ki ñu war a waxtaane yaakaar naa ne ubbi nga ko ni nga ko waxee noonu la euh, royuwaay la kon boog am nañ mbégte ci bu ñu fi teewloo ci ndigal ñu teew fii ngir war ko waxtaane jërëjëf sëñ Fallou kon ñu bàyyi sëriñ bi rek mu ubbil ñu ay kàddu yu ñaan su ko defee ñu daal di ànd ak bokk yi nag ci biir waxtaan wi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ci seen émission bi nga xam ne moom la ñu dëppee Atu Murid alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin nabiyil amin wa wa asxaabihi wa xudaamihi sawi ridwaani wa tamkiin kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa atub saalihaat ñu ngi leen di sant bu baax ci ëtt bi ngeen daje tey di ëttu murid saadix waaye murid saadix boo xam ne nag ci saalihaat yooyu ngeen di bëgg a tudd ci la soqi ko ci la soqi ko ci ndey ci la soqi ko ci baay kenn ku ne xam na ne sëriñ Modou Mamoun ay euh, saaliha way juróom ci saalihaat yi la bokk kenn ku ne xam na ne Maamanta Njaay way juróom ci saalihaat yi la bokk moo tax ñuy wax saalihaat ndax kenn ku ne xam na maam Anta lu ko boole ak soxna jaara te soxna jaara li indi bis bii ak bis yeneen soxna jaara moo ko indi waaye la ko booleeg maam maam Anta Ndiaye xam nañu ko kon nag nu barkeelu ci bis boobu rek ma xon ne ginnaaw bu waxee ci kër suñ Muntaxa ba noppi du ma waxaat dara loolu xanaa jublu ci liggéey bi rek sëñ Muntaxa moom ah nuyoog taalibe yi ak saafonteeg ñoom moom la tuddi liggéey suñu Tuubaa ba waxee rek mu ne mooy liggéey bi talu talunoo noppalu kon nag li ngeen ci bëgg ba tax ngeen def ko ci ëtt bi soxna roq yi Touré mi may ñu suñ Modou Roqaya kenn ku xam na ni ci saalixaat yi la bokk moo taxoon eh, moo taxoon ki fi nekkoon ñu di ko wax Mor Lisa di bind lemp yi di bind lemp yi di bind Roqaya Touré Roqaya Touré mu yàgg mu ne waaw Roqaya Touré mii li muy bind ci lemp waaw moom góor la walla jigéen mm-hmm. kon jigéen bu ñu demee bu di ko jaawale góor booba salihaat la salihaat nag suñu borom da leen jagle lu bëree bëri ci alxuraan loo xam ne sëñ bi dana ci agsi waaye bu ci agsee nag ba wax ko nu ñaan jigéen ñëpp rek ñu roy ci saalihaat yooyu ndax jigéen kat dana dem ba ñuy wax naan jigéen ju mën góor jigéen ji man góor muy muy andi mbër mu daan ñëpp mhm. kon nag soxna Jaara mooy jigéen ji man góor moo tax mu andi mbër moo xam ne daan na mbër yëpp ba waral ba waral bisub màggalug Tuuba ak bisub màggalug Daaru saalihaat yooyu ñoo ko liggéey kon nag euh, lu ci waay fas da nga ko am ci bis bi ak foo mën a nekk ak foo ko mën a fase foo ko mën a fase rek loo ci fas yàlla ak sëriñ bi dana la ko defal ci barkeb saalihaat yooyu kon ñu ngi ñaan fu ngeen bëgg rek ngeen àggale ko fa taalibe yi itam ñi nga xam ne am nañ yéene ñëw te ndigal li tax mënuñoo ñëw wala gàllankoor yi tax mënuñoo ñëw ñu ngi leen sant bu baax te xam ne rek lu ñu nekk lu ne ndigal lee ko ëpp doole ndigalul Serigne Touba mu ëpp doole lépp te noonu dañoo fas yéene ko ci ndigalul Serigne Touba rek waaw nun defe naa ne nun waa Daaru Salaam bu suñ suñ Muntaxa newul sax mën ngeen a woote màggal gi te màggal ko na ngeen ko daan màggale noonu ci suñ bopp noo war a gàntu ndax màggal yi jiitu màggal yi jiitu màggalu Daaru Salaam ba ci bisub sëriñ fàllu bi ba ci laylatul xadar ji ba ci bisub Cheikh Abdoul bi yooyu yëpp nañ màggale war nañ caa mën a roy bu nu sëñ bi ne woon ma bu leen neexee màggal sax ñun danoo war a ñaan ngant te ne ko doon ko danoo bëggoon a roy ñi nga xam ne ñoo nu jiitu ngir def ko àddee sëriñ Muntaxa sëriñ Tuubaa Muntaxa te xam ne la mu digal màggal yi jiitu ku ca roy itam euh, da nga am tuyaaba joo xam ne ji mooy ëpp ja ngay am boo màggaloon sax ndax ndigal rek am solo jërë ngeen jëf asalaamaaleykum jërëjëf euh, mbokk yi kon ñoo jot a dégg kàddu yu am solo yooyu nga xam ne bàyyikoo na ci eh, soldaarub sëriñ Tuubaa yi di sëriñ Cheikh Anta mel nag sëñ ma sëñ bi dafa ubbi jataay bi ci ay tënk yoo xam ne boo ko tënkee mooy doon li nga xam ne moo war a nekk waxtaan wi ndax dafa junju wax ne soxna Roqaya Touré borom ëtt bi saalihaat yooyu ñoo ko meññ soxna Roqaya Touré Roqaya Touré ma ko meññi Aminta Mbàkke ko meññ Aminta Mbàkke Ibra Kane ko meññ Ibra Kane Ibrahima eh, Ibrahima Awañang ko meññi Ibrahima Awañang maam ma xarama ko meññi kon de loolu mooy toogtale ne rek kon borom ëtt bi ci saalihaat yooyu la bokk ak li mu bokk ak soxna Anta Ndiaye Mbacke nga xam ne ñoo soxna Anta Ndiaye ñoo bokk Ibrahima Awañang so eh, soxna Anta Ndiaye jur maam Cheikh maam Ibra Kani jur Serigne Modou Mamoun waaye jur itam eh, ka nga xamante ne bii jur soxna Buri mu jur sëñ Modou Mamoun waaye mu jur itam soxna Aminta Mbacke mu jur soxna Roqaya Touré mu jur sëñ Modou Roqaya mu mel ne nag kon soxna Anta Ndiaye ñu bari dañuy wax turu Anta Ndiaye Anta Ndiaye te wax ne moom buñ ko seetee ak ñi mu bokkal boo delluwaatee ca Jolof da ngay fekk ne am na buur buñ daan wax bërgal ma fent bërgal ma fent amoon na ay doom waaye amoon na ci ku ñu wax aatumaan Ñang lu mel ne ka boole woon ak way juru maam ma xaram tam am ca doom ñu dugg tudd ko Mouhamed moom aram Ñang muy muy muy muy muy sa tub bërgal ma fent Ñang waaye mu amaat jeneen doom joo xamante ne bii Ibrahima awa Ñang la tudd. di doomi bàjjani maam maharam nga xam ne baayub maam maharam ak yaayi awañang ñoo bokk ndey ak baay awañang moomee nag bi maam maharam jàngee ba mokkal alxuraan ba dellusiwaat dafa dem kër nijaayam jël doomi nijaayam mu tudd awañang mu taawloo ci ku ñuy wax soxna Mbacke awañang teg ca ku ñuy wax Ibrahima awañang teg ce astu Mbacke awañang ak xëri Mbacke awañang Eh, Ibrahima Awa moomu bi mu delluwaatee moom it jàngi alxuraan ba mokkal alxuraan jàng xam-xamam ba am ko bi mu dellusiwaatee dafa delluwaat ci këram kër néegum ndeyam nga xam ne kon da ngay xam ne sëñ sëñ sëñ gaawaan lus di bokk ak sëñ Tuubaa bokk na koog moom. Eh, Anta Ndiaye Kandi moomu nag nga xam ne mooy doomi soxna Kandi Saw ak Ibrahima Awa Niang ngi feeñ jamono ci atum 1825 ca Jolof wax nañ ne mille diggante 1825 ak 1826 la feeñ jamono ca ca Jolof. bi yàlla dogalee mu mata dal jàng dafa fekkoon ne booba Mamballa Aysa baayam daf ko féetale woon ak Ibrahima Awañang nga xam ne lu ëpp ci dundug Mamballa Aysa mii caatu maam Maharam Ibrahima Awañang ko saytu bi yàlla dogalee nag moom soxna Anta Ndiaye way eh, waajuram jox ko soxna Astawaalo soxna Astawaalo moom la ko tuddee ndax soxna Astawaalo Ahmadou soxna bu soo ko jur Ahmadou soxna bu soo ak Ibrahima Awañang ak Mamballa Aysa ñoo bokk benn baay soxna Anta Ndiaye gane àdduna ci atum 1825 ca Jolof ñu jox ko soxna Asta Waalo tuddee ko ko muy Aysatu Mbàkke mu jàngal ko alxuraan ba mu mokkal mu jàngal ko xam-xam bi yàlla dogalee nag eh, sëñ Mbàkke Mor Anta Sali dem ba war a tell ci denc samp kër yàlla dogal ne kon comme moom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali baayam maam Habibullah gis na ne baayam bii di Ibrahima Awañang moo ko toxi moo ko yar mu ne kon sama doomi baay ji nga xamante ne bi mooy soxna Asta Waalo moom laa ko moom moom laa koy séddee muy soxna Asta Wala Mbacke di soxna Anta Ndiaye fekkoon na soxna Anta Ndiaye ñu wax ne li sëriñ bi junj jigéen ju man góor la daanañ wax ne daana jàpp lu mat téeméeri surga moom kese sàmm wax nañ ne ñetti sàmm la yoroon yoo xam ne ñoo ko daan sàmmal ak juróom yoroon na teel tool yi wëtteen nga xam ne da daan ëcc den suub di rabb ay yére nga xam ne dafa mel ne ku yoroon benn entreprise boo xam ne liggéeykat la woon ba noppi di jigéen ju am taxawaay te xees adduna bépp bëgg ko doomi buur yi bëgg doomi soxna yi bëgg ko waaye mu doonoon nitug diine ku sell di ab saalihaat boo xam ne jaamu yàlla moo ci mënoon ñëpp fi may njëkk a tàmbalee yow jikko ju màgg da maanaam jikko ju màgg mooy jigéen joo xam ne sa doomi baay daf la wàcceloo jabar kooka yàlla dogal ngant am ca nga ne leen bu mu ko yëg moom man wàcce leen ma nga xam ne moo génne ñetti dërëmi ngurdu yi nga xam ne moom moo ko génneel boppam na leen lii bu fekkee ne dagan na fasal leen ma ko ci ñu fas ko ba noppi mu xottil boppam ay yére ne man wàcce soxnaa ma kon day mel ne kooku buñ doon seet jikko ju màgg dëgg dañ koy jàng ci soxna Anta Ndiaye moom nga xam ne moom laa doon junj say axma. jërëjëf euh, sëñ Fallou yaakaar naa ne ubbi nga bunt bi ginnaaw bi ko sëñ bi ubbee ubbi bu leer jaar nga ci jaayin woo xam ne euh, noonu nga ko waxee ci jigéen joo xam ne wax nga ne léegi royukaay la royukaay la ci ndaw royukaay la ci mag royukaay la ci ñëpp te ku déglu say wax ni nga ubbee da nga xam ne kon. royukaay la ci étape yi nga xam ne jigéen dana ca jaar jigéen day gën a àdduna nekk benn mu nekk ab jigéen te ni nga waxee ni léegi royukaay la ci jigéen bu baax ndax yaakaar naa li nga wax nii ci ne eh, koo xam ne te ma ma xamal ne nag sëñ Mor ànd sëli ay jamono booba ak daara ji mu tàmbalee woon kër gi neexul te doole ji bëriwut ba mu fa demee nag bañ nangul ko eh, fekk ne li nga waxoon léegi moom jigéen ju mën góor la soxna Anta. Mm-hmm. néeg bu bari wërsëg lañ. tam mm-hmm. mbarke. Mm-hmm. Ah, loola taxoon ginnaaw doy bàyyam la doy bàyyi sëñ Mor Anta Sali la tam. te it liñ seq ci teraanga démb tax na mu ne kon na ko ko wàcceloo séddee ko ko. Ah, bañ ko ko séddee itam li tax may royukaay la ci buñ ko seetloo buñ ko seetee en tant que ab jigéen. danaa ñëw ci en tant que soxna waaye en tant que. yaay. jigéen noonu jigéen étape yooyu lay lay jaar. day nekk jigéen. ba ci yàgg mu nekk soxna. ba ci mu nekk koy jur. waaye bu ci nekk ci étape yooyu. boo ci xoolee soxna Anta Ndiaye da ngay fekk ne royukaay la ci képp koo xam ne yaa nga toll foo mooy moo xam yaay nga. wala jigéen ju ne ci kër nga di di di sàkku ngërëm. wala boog jigéen ju demagul kër nga. ne ci ron ndigal. Euh, loolu amee kon ñu dem ba mu ñëw ba mu ñëwee nag li nga wax itam moo ci nekk. indiwaale naan ñëw ne ak dooleem. doole. def lépp loo xam ne teraanga la ci bis bi bi lii xewee mbir yi jaar fam daan jaar ndax am na fa jaar ci ay yàqkat ne leen nag ki ngeen di bëgg a jox seen yàlla dugg na fu ne ngeen ñu bañ bañ ko ngeen di ci def lii di ci def lii ba tax wala ngànt am bi mu amee yaakaar ab jigéen dëgg dëgg dëgg suñu tubaab di wax ci nax ju ne leen mbokk dëgg dëgg ak xarit moo gën a néew lépp luy néew <laughs> waaye kii dëgg la dëgg la ah nga <laughs> te saalihatu boobu nga ko tuddee kii mooy mbokk mu baax dëgg al uqutu al aqu xaqan mooy kon nag mën nañ ma ñaxan kii ab jigéen dëgg mooy moom mooy soxna Anta Ndiaye ndax bi loolu amee ñu ne ah ñu ne ñëpp xam nga rek doy waar waajal lañ waajal lépp te ba noppi xibaar bi ñëw li nga wax nii mu ne moom na wàcc di gan gi bu kenn yëg yaakaar naa ne jigéen bu féete càmmiñam fam ko war a féete mm-hmm. dëgg te dëggu mm-hmm. te xam lu baax mooy def loolu. dëgg la kon bu ñu seetee en tant que euh, jigéen dama lay wax ne la mat na ab jigéen. dëgg la mat na ab jigéen ki suturaal suturaal en tant que jigéen. mat na ab jigéen ab jigéen ci wolof waxee mooy sa rakk ju jigéen. Mhm. wala sa mag ju jigéen. Mhm. Euh, kon mat na ab jigéen euh, li mu taxawaay bi mu taxaw yaakaar naa ne képp koo xam ne tam njëkkee nga ci sa kër. jàmmiñ. njëkk nga gis sa kër Thiamé njëkk yi war nañoo xool ci taxawaayu Soxna Anta Ndiaye. dëgg la njëkk njëkk ndax njëkk la woon. dëgg la tasut kër ga. waaye da koo dundal. sëñ Cheikh mu sëñ Saliou day wax ne yaatub xolam moo yaatal kër sëñ moo Mor Anta Sali. dëgg la moo tax sëriñ Soy bu daan wax ne alxuraan bu jiituwoon soxna Anta Ndiaye waskul fii kitaab bi fulaanatun dina ci am. waaw loolu sëñ Sow wax na ko ba tey fii kitaab bi Ibrahima fii kitaab bi bi Nangam. suñu borom di wax yonent bi fàttalikul diw. nee na nag bu fekkonte ne alxuraan jiitu na soxna Anta Ndiaye. sëñ bu nee na kon da nga ci fekk waskul fii kitaab bi Anta Ndiaye. dëgg la. kon li nga wax ni la kon Mariama jeex na <laughs> kon nag ci fekk turam kon léegi kon euh, euh, ngir sa wax jooju ne saalihatu la am na lu wér la euh, waaye ñu seet nekkin wi tam ci nekkin boobu mu diggante boobu nga xam ne wàcc na nekk soxna si euh, bi ñu waxee moo ànd si moo ànd si booba li ñu ci wax si moo ànd si defoon na ne moom ci xalaatam rek moom xalaatoon jëm ci moom déedéet ndax booba rawante nañ ci barke rawante na ci yu bëree bëri ci ci wàllu social kon xalaatam jëmu ci woon bu fekkee ñëw nañ nag tam ci wàllu ba léegi jigéen boobu taxawaayam waaye euh, wëllëre gi mu am kóllëre gi mu am ak maam Asta Waalo taxan na ko nemmeeku ci nemmeeku ci googu nag moo tax tamit bëtam gën a donte moo soxna bu sa ñoo yaroondoo nag moo maam Mor moo soxna na ko jeex na ndax daana wuutu soxna Asta ci daara ji te booba soxna Mariama daa toll ci di jàng jeex na kon kon kon xam na ko mm-hmm. waaye diggante bi mu nekk kër sëñ Mor Anta Sali du gis soxna si léeg mu dem seeti soxna Asta Walo ndax kóllëre googu ak dundal googu donte maga ma nag waaye moom la ñu ko tuddee itam ah mu di ko seeti di ci la gis nag soxna jaar ci melokaan wi ci defin bi ci waxin ci doxin ci jukk ju rafet ci bëgg lu baax ci yiw soxna Anta Ndiaye nekkul ànnaaniya nekkul égoïsme mhm. koo xam ne dafa nga ne njariñ yeg yow rek yaa ko yaa a ak moom mhm. waaye bëgg na ñëpp njariñ mhm. mu gis ne soxna si soxna jaara kat tey xam na suñu mor anta sali bi mu ñëwee gis suñu na kat mooy ndax bi mu tooge moom ab rek xam na ne kii góor yàlla ngi te kër gi dem na ba laaj ne tam wéttal mu dem waxtaan ak soxna astuwaal da ko soxna bés mi damaa bëgg gis taa fu ñu mën a wutee ngërëm mm-hmm. ñu ànd fa wut mm-hmm. mais soxna suwaal da koo gàntal lu tax mu gàntal ko mooy dañu mën a tuddee ma la nga duggee kër nii nga duggee kër mm-hmm. loolu du am sama doom du la fekki waxuma la waaye mu daf dañ dafa bënn ay bëtam daf ko ne bu ko ngor may bu ko diine mayee sama ngor mayu ma ko effectivement nag la soxna Anta Ndiaye soo ko jooyee effectivement ngor loolu nag doy na waar yar nit ñu tuddee la ko mu dem ci kër demin woo xam ni la war ci moom defuñu ko ba noppi nga jël sa doom fekk mu fekk mu fekk ko foofa loolu nag wax dëgg yàlla yombul yombul loolu amee nag mu convaincre ko kiy wax waaw wax nañ ne eh, bokk na ci li nga xam ne ci la njëkk convaincre soxna Asta Walo daf ko ne fi nga ma daan nawee ci daara ji da nga waxoon ne ñi fi nekk ñëpp maa leen dàq arut mun ne ah ma ne ko gis naa ne Mariama mii moo ma ko dàq te sëñ Mbàkke daal laaj ko ko jàppale ci wàllu njàngum xam dégg nga bokk na ci baat yi mu ko convoqué rek. kon convoqué ko moom it soxna Asuwaal soxna Aïcha tam xam ne ah lu baax moom lu baax rek la. waaye problème boobu bi soxna Asuwaal nangoo ba noppi mu war a ñëw nag ci sëñ Mor Anta Sali. mu Anta Sali ni ko xalaatee su ko. bu ci dal bu ci dal ngor gi nga ma ji. defuma ci yow dara awuma dara. benn benn kër gi ñaari néeg fi nekk. benn néeg fi nekk waañ. Mm-hmm. kër gi benn néeg waañ nekk ak kër dongo yi mu ne amuñu fu ñu ko dugal ak li ngor gi gi gi ma gi ma gi ma gi may lebal mm-hmm. ba noppi ma naan damay jël nit di ko tekki sa kaw te defuma ci yow dara xaarisu ko ko moom itam na mu convaincre mm-hmm. soxna suwalo mm-hmm. ba mu nangu ne ko léegi su ma nangoo sax lu ñu ciy def mu tekki takkaayam jël alalam def ci jël alalam def ci jël alalam def ci ba loolu mën a nekk sëñ Mbacke Mor Anta Sali daf ko ne man benn kaamil laa yor boo xam ne bind naa ko ba mu agsi ci suuratu Faatiha mën naa ko àggale jox la ko loo ci boole nga jox leen ko. xam ne kon kaamilu alxuraan boobu ak alali soxna Anta Ndiaye. yooyu yëpp amee mu ne ko néeg mu ne ko mën na maa dem ci waañu. Mhm. mu ne ko mën na maa dem ci waañu. allahu akbar. Mhm. ñu ñett mu dem ci soxna bu subaat ci ne bu baax. Mhm. topp ndigalam. gis nga bu ñu wax. li sëñ Tuubaa di wax wa sawjatan saalihatan tu'inu ala tuqaa wal birri ya mu'inu hmm. da ko dajale woon hmm. nekkoon imra saaliha hmm. daan dimbale sëñ Moor ci liggéey bi liggéey bi tasaare lislaam bi ak liggéey bi lislaam bi ko ci dimbale bu baax a a baax baax a baax loolu moo ci nekkoon nga xam ne eh, nekki na fi nekkin woo xam ni léegi nag bi sëñ Moor bi nga xam ne dox na eh, li mu war a dox ginnaaw dogal suñu boroom ak la mu namm ki soxna jaara bañ ak ci kër gi nag soxna jaar li mu njëkk def mooy ne ko man nag yaay mhm. du ma bokk yow ay ndax yaayam la xam nga dëgg la moom la daan moom la daan utiliser sax waaw mhm. jeex na leeral nga ko léegi mhm. yaayam ne ko yaay du ma du ma lay wàcc ci ay di yan lépp waaye yaayam ne ko waaye dañoo bokk fii soxna Anta Ndiaye ne ko dañoo bokk fii di liggéey di wut ngërëm kon nañu xas dégg nga mooy nañu tënk suñu bopp <laughs> nañu jaayante rek la la ndax ndax sëñ Tuubaa jaayante gu bees gi mu yeesal mm-hmm. booba xëy amuñu woon déggin yooyu mm-hmm. waaye daanaka soxna Anta Ndiaye la ko waxee jaayante mu ne ko man kon ja euh, xas nag buri dañu ko daan def buñ na suba la ñuy xare ñu samp xeej bi mm-hmm. sëpp ma namee wor nanga su ma namee wor yàlla bu moo ko fekkee bu su man suba dinaa xeex lu ma sama dara du ko fekkee loolu mooy xas moo jaayante rek lañ ko mën a firee léegi nag euh, mu ne ko nañ nekk ba suba boo ma mayee ba suba sa mu fàttali ko ko mu ne ko bisimilah soxna Anta wax ci. Hmm, soxna Jaara moo ko ne comme yaa ma jiitu ci kër gi. tey sama waajur. Hmm. damaa bëgg nga wax xas yow. li nga fas yéene am ci kër gi. ba noppee ma ñëw. mu xas-xasam yooyee ci dinaa fi liggéey lu ma may weer ak jant. Hmm. mu liggéey ko fa am ko fa. muy borom penc mii. muy borom dërëm ak ngërëm. ak ilimaan yi ñëpp mhm. Mhm. moom it mu ubbi kaamilam ba wax ne jam ci aaya jooju yonent bi suñu borom di wax ne yonent bi Muhammad mooy xaatimu mhm. mu nekk bu toon lii man ma it am naa pas-pasu liggéey fi ba am ab yonent ab yonent waaye gën amu fi nag man dinaa fi may fas yéene liggéey ba am fi asamaan soxo bi dana tiim jant bi hmm. ak weer yi dana leen ëmb hmm. muy Cheikhul Khadim jàmbaari saam ñi nga xam ne moom la bi doon tudd léegi nga xam ne hmm. mooy mbër mi daan ñëpp waaye loolu soxla si ak njàmbaaram xoolal léegi sànq naa la du du koo xam ne dafay bëgg aki moo xoolal basira basirata bi bi mu am moom soxna Anta gis-gis bu sori bi li mu war a am fii ak ni mu ko yaatalee uh, day mel ne li nga wax ci ne toon rek ne dama koy aakimoo dama cee bëgg a jëriñ ñëpp feeñ na ci ni nga xam ne ni la ko fi soxna jaara fekke feeñ na ci ni la nga xam ne ni la ko fi soxna Faati Isa fekke ba ni ñu demee Saalum ndax bul fàtte ne laata ñuy dem Saalum fekk na soxna Faati Anta gane àdduna fekk na sëñ Mbàkke Anta gane àdduna sëñ Mbàkke Anta ak soxna Faati Anta ñoom ñaar ñëpp ñoom mag sëñ Mor sëñ Mor Jaara kon ay doomi mag lañ waaye bi ñuy dem Saalum ba dem Saalum ba dellusiwaat kër gi nar a xat ngir ñeneen ñu fi nekkaat ndax foofu fekk na soxna a wàcce ab liggéey waaye bi kër gi na naree xat xoolal lam waxaat mooy man wàcce si soxnaa ma fi indi woon te ñeenta ngi fi te dëgg ñaa ñu lay tudd keneen teg maa yeewi ma doonaat seen njëkke nga jël kooko dugalaat ko ci biir kër gi ndax njariñ li daa bari te ku ne xaj na ci jërëjëf sëñ Fallu loolu Lat Joor Lat Joor dafa yoroon soxna Isa Jóob mm-hmm. mu jur ab taawam ñu koy wax Moor Isa mm-hmm. ñu dem ba ab jamono nguur gi rëng-rëng nguur gi rëng-rëng ab naaru Cherif ñëw fa mu dugaloo ko xalwa bu mu ko dugalee xalwa mu ne ko sa kër gii de yor nga soxna soo xam ne biiram war na jur wëliyu te yow yaa koy jur yow dem li fekk génn ko doo am te foog faaw mu génn kër gi mbaa mbaa gi mbaa nga daanu la nga dee kenn jël ko waaye moom kooku faaw mu jur mu ne ko ndax xam nga kan la tuddum tudd mu ne ko ah, xaw ma ko mu ne ko su ma dajalee jigéen yi su soo gisee ko xam mu ko waaw ba xëyee mu dajale jigéen yi soxna euh, Coro Maroche soxna Afsa yaay sañ sañ sañ si Afsa soxna Anta dégg nga soxna Faati Isa kon mat na xam nga xam nga mën na kon léegi te moom nee du dégg du jéggi sariya bëggutoon bëggutoon jéggi bëggutoon a jéggi loo loo soxna ba amutoon sañ-sañ bi léegi nag euh, ci loolu amee war koy wacc kan moo ñemee denc soxna yu buur. soxna su buur ah. jaaxal na kenn ñi mu waa ji naan rayub tubaab yomb na waaye foo koy saraxale foo koy saraxale ci lañ nekk ci lañ nekk ci lañ nekk ci lañ nekk ba ba ba ba mag ñi nag ne nañ ko jox suñu mor ànd ndax moom euh, xaritu euh, sëriñu Lat Joor la mm. te mag la bi ñëwee di ko gaaral nag la leen wax lii mu leen wax soxna Anta Ndiaye soxna Anta na leen nag euh, soxna Ndiaye Anta Ndiaye dégg ko nag ne ko nag déedéet man lii fi indi woon rek ab jigéen laay foo nekk kay man naa ne yoolu ndànk rek génn yaatal ko mu dugg ba tey mu dugg fi am fi sëñ Massamba xoolal sëñ Massamba liggéey bi mu liggéey wallaahi waaw te lépp nag ci baaxug suñ an soxna Anta Ndiaye dëgg la bëggoon naa ñëw foofu sëñ euh, sëñ Ahmadou xamit ne soxna Anta Ndiaye maanaam sëriñ bi daana wax bam mu nekkee njaareem buñ ko laajee ci yoon wi dara mu ne woo leen soxna Anta wala ngeen dem ci moom mm. njëlbeen gi fi la ko fekk muj gi fi la ko fekk mm. ndax bi yoon wi taxawagut soxna Anta Ndiaye ak Serigne Touba la woon. bi yoon wi taxawagul. Mhm. Mhm. ndax bul fàtte ne eh, maam Cheikh Anta mi ngi gane àdduna 1866. Mhm. soxna Anta Ndiaye waxoon na ko bi muy gane àdduna li tax ñu teg teloo ci ne maam Cheikh Anta fekkanti wut soxna jaare jamono. mooy soxna Anta Ndiaye mooy ndaw loolu mu yónni woon ci ca boobu mu tudd Ahmadou Mbacke rek. mu ne ko demal ne Ahmadou sa bàjjen nee na barki démb nga ñàkk yaay. waaye boo boo boo sàgganee bàjjan nga ciy teg. Mm-hmm. ndax yëg naa ci sama bopp loo xam ne. Mm-hmm. bu ci bu ci taxawut mën na mën na maa fekk yaayam. Mm-hmm. nee nañ ci la maam Cheikh euh, sëñ Touba binde ab téere jël bant xar ko roof ca téere ba. ñëw ba ci néeg bi soxna Anta ne mu xar permi roof ko ca. yëg lu mu yëg ko mu ne ko jàmb ko te naan ko. wax nañ ko bi mu ko jàmbee naan ko diir bu gàtt lañ dégg maam Cheikh Anta mu fee jamono. kon tegtaloo soxna Anta Ndiaye yàgg gi mu yàgg a doyloo Serigne Touba te booba sëñ Mbacke Mor Anta Sali ngi fi. ci biir ci biir loolu. Mm-hmm. ci biir loolu euh, mu fekk kon euh, bi bi bi sëñ Mbacke Mor Anta Sali di di jóge Mbacke. Mm-hmm. di dem euh, Xuru Mbacke. Mm-hmm. fekk bi mu jóge Xuru Mbacke. di dem Saalum. lépp moom moo ko ànd bi muy jóge Saalum dem Pataar ñoo ko ànd. ab ab taawam faatoo Njaañ mhm. mu jóge Njaañ ñëw Mbacke Kajoor mhm. ñoo ko ànd mhm. mu jóge Mbacke Kajoor moom sëriñ bi ñëwaat ñëwaat ñëwaat ñëwaat Mbacke Bawol sanc ko soxna Anta Ndiaye ànd ca ñu ànd ñëw Daaru Salaam mu fekke ko ñu dem Touba ci sanc ba mu fekke ko mu dem Bari Mbacke Bari mu ànd ak moom sëñ bi dem ci géej gi mu dellusiwaat ci maam Cheikh Anta bi sëñ bi jógee ci géej gi mu ànd ak moom ci nganuk Daaru Salaam ga mu dem gànnaar mu di ko yónnee addiyam mu dem Ceyeen Jolof mu di ko fa yónnee addiyam bi mu ñëwee njaareem ci 1915 ci la soxna Anta Ndiaye soo ko génn àdduna kon lépp yoon yi fekk ko. xam nga moom jikko ju baax ci xam nga bokk na ci ay turam yàkkale. yàkkale waaw. yàkkale boo xam ne dimbali nit. yàkkal rek yàkkal. waaw yàkkal yàkk bi kat ab turu yàkk la lee na ci na ci ndab lee na la. Mm-hmm. léeg-léeg. or lay doon. léeg-léeg xaalis léeg-léeg yére ay waaw waaye lu yàkkaleeti na ngalam ngalam jeex na waaw moom kat yàkk bi nakate ngalam la tey ngalam la tey looloo andi turu yàkkaleeti na ngalam nga xam ne bu la masaa di jox dara da koy def ci ab këll këll muur ko muur ko nga xam ne day nurub añ mu yónnee ci ne ko dama jiit ko sa bàjjen diw fekk na booba kooko ajo woon a takkaay bu dikkee bu nekkee ci néegam bu ubbee fekk mu doon wurus mu ne ah soxna Anta de yàkkaleeti na ngalam ñu bàyyi turu Anta wa di andi yàkkaleeti na moo tax ma ne kon ak ceex turu ndaw dooma ma jeex na muy maam Cheikh Anta macha allah <laughs> mhm. yaa ngi kon mu ne liggéeyam dafa rëy moom soxna Anta moom liggéeyam dafa rëy kon buñu nee suñu soye bu nee na bu ko alxuraan jiitu woon ñu alxuraan tudd ko mhm. yaakaar naa li fi wane mhm. waaye nag loolu lu lu la su ko alxuraan jiitu woon dina ko tudd waaye nag wax nañu soxna Anta en tant ab jigéen en tant waaye xoolal soxna Anta en tant que yaay en tant yaay yaay joo xam ne li ñu waxoon léegi xol bu set bi nga tuddoon léegi xoolal keroog bi sëñ Mor Anta Sali di génn àdduna ak lam waxanteeg sëñ tubaa ci ne ko fee ma jëm di man yow rek laa fa yaakaar te ragal naa fa sëñ tubaa jox ko garantie da nga mel ni mbott mu jóge ci dex rek tàbbi ci dex mbooyo du sonal tàngoor du la fi sonal soxna Anta Ndiaye sa sama loxo bii ci sa kaw danaa ko teg ci loxo bi rasulullah <laughs> eh, soxna sa ant soxna ant fekk mi ngi toggaloon laax bu mu doon wér sëriñ bi ñëw nuyoo te waxaguñ ci bisimilah mu toog dégg wax jooju mais xoolal ni mu teelee soññee maam Cheikh Anta ci sëriñ bi ak sëñ Afe sëñ Afe njabootam gépp la boole njabootam gépp mhm. mu jox leen mu tël leen soñ sëriñ bi leen kii kat du moroom du nawle du mag waaye sang dañ ko jox seen lépp te topp ko ñoom ñu déggal ko waaye damay xool foofu nag xool en tant que yaay joo xam ne way jur wu jigéen lépp luy njariñ tey njariñal say doom tey ëllëg loola doo ci seet ak kujje doo ci seet ak kujje doo ci seet ak kujje mais da nga koy dox nañ ci war a doxe moo na ne booba kat kii sama doom yi sama doom yi nangama sama waaye waaye musta xool bët boobu sëñ Tuubaa déedéet musu ko xool bëtub lu dul li ko yàlla do li ko yàlla doomale mu doomale ko ko mm-hmm. te tey kooku fekk lépp tëj moo tax keroog 1915 boobu ngay wax keroog bi nga xam ne maam Cheikh Anta na ñaadam ñaadam wutu sëriñ bi mu ne ko xanaa ya xanaa bàjjan nga may tàggee <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko soxna jaara jaar na fii jëm teqale nee na ba soxna moo sëñ Mor Anta Sali génnee adduna léegi tegewut bët ak moom ndax rus na koo gis te soxna soxna Anta yaay di dund <laughs> soxna jaar na fii léegi jëm deqale <laughs> nee na ba sëñ Mor Anta Sali génnee adduna léegi rus naa gis sëñ Mor Anta Sali te si fekkiwu la ilaha illallah eh, jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Ahmadou jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñu topp xam naa ne seen émission ëttu murit eh, day mel ne fii mu toll képp rek la ñuy suñu technicien di xamal ne jataay bi mi ngi signalé wax ne waxtu wi jot na kon sëñ Ahmadou yaakaar naa ne dañoo duggoon ci biir géej bay tolloog tefes gi di ci waaj a dugg rek ñoo xamal ñu ne nag jant baa ngi waaj a so. loolu loolooy lu wér. Mhm. ndax bu ñu jëloon soxna Anta Ndiaye ak insaaniya rek. Mhm. ak mhm. yitte googu nga xam ne moo ne ci jàmbaar ji tey mm-hmm. bëkk dem bi nga nee ma nañ daje ci maam Cheikh Anta mm-hmm. te boobu laa ji dama ne maam Cheikh Anta ak nite rek nite nite eh, al insaniya mm-hmm. nga xam ne nga xam ne insaan baatu insaan yoo xam ne alxuraan tudd ko cinquante six fois inal la yàqa la kanoodun la saloomun yooyu mu ci indi xëy mooy tee nit nite ni ku ko yàlla teggile ba mu nekk nit ku nite te di sa googu nag dañ ko doon jàngee ci soxna Anta kon ba so Anta waxoon naa ko ci njëlbeen état bi yi soxna di jaar jigéen di jaar yëpp da cee jaar te bu ci nekk royukaay la ab jigéen royukaay la. wallaahi yaakaar leer na nañ. Mhm. soxna soxna royukaay la. Mhm. yaakaar leer na mhm. royukaay macha allah. kon boog ñuy dellu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan la sëriñ bu baax mi taaral jataay bi ñaan yàlla gën fan yu guddul fan yu bu baax boole kook euh, wér ak tal ci nga ànd ko sa kilifa yeeg Cheikh Mountakha ànd na ñoom liggéey bi te euh, yàlla gërëm lépp asalaamaaleykum wa rahmatulah suñu fal wa rahmatullahi jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Touré jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun di ñu seetaan seen émission bi ñu duppee ëttu murit tey ñu dafa ko ci ëttu murit Saadix di ëttu sëriñ Modou Rokhaya euh, feggoo ak jàmbaaram ji nga xam ne moo di soldaaru sëriñ Touba di sëriñ Cheikh Anta mu sëriñ Modou Rokhaya yàlla na ko fi gën a yàggal gën a dolli ak wéram ñu ngi leen di joxaat sëñ Fallou Fall ci wàllu machine bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.